paadu ko doomu daanu Baye Ma Ndiaye agogo Baye Ma Ndiaye daa mel ni jàppante bi la gënoon bëgg waaye xeex bi en zone na ko Ma Ndiaye agogo Baye Ma Ndiaye bëgg nga bàyyi xel ne ki nga bëreel daanaan la ci làmb tàkkusaan bu ne am na ko fi moom agogo agogo Baye Ma Agogo Baye Mandiaye Baye Mandiaye defal ndànk moo ngi koy biij di ko jaay doole Baye Mandiaye da ko bëgg a mbot defal ndànk Baye Mandiaye Agogo Baye Mandiaye stade baa nga yuuxu Agogo naan ko Agogo Agogo Baye Mandiaye Baye Mandiaye nag fee bëgg a ñëw jëlee waaye combat bi du yombu ci yow Agogo boo ko gisee da nga koy xeeb waaye na mu toll doole ji ëpp na noonu. war ko ko ndomba da koo tël bu koo zongale Baye Mandiaye ngay dóor Agogo Baye Mandiaye ngay dóor moo ngi koy bay Agogo Baye Mandiaye daa dëgër waaye est-ce ci génn moom Agogo. Agogo Baye Mandiaye est-ce que dana ca génn Agogo Baye Mandiaye Agogo Baye Mandiaye daanoogul Agogo daanoogul ba léegi eh Baye Mandiaye Baye Mandiaye boo xoolee Agogo génn fii Baye Mandiaye boo xoolee Agogo génn fii woon ndomb penalty la ci daan na ko ma Mandiaye daan na Agogo Baye Mandiaye daan na Agogo ma mbooloo mi kàggu jëlal ma mbooloo mi Baye Mandiaye àndal Baye Mandiaye ngoog tegaat na jéego ci làmb sama mag di sant ñëpp di gërëm ñëpp dala ngaa jox say morom lay lay bitaa góor laa bëgg a bëgg parce que jaadu na lay ñaan saas forcé mo dama ko ñaan saas ngir yàlla na ma may saas xale la liggéey damay liggéey man damay liggéey kan moo nekk kan moo nekk sa kanam lay dama kaa ñaan saas ngir yàlla na ma may saas. kan kan lay Pythagore. non moom rek laa bëgg may ma saas. sama mag. koo buumoo du ko mbaa.